li ñuy def rek kon mooy dañ koy daal di nuyu ziar ko te ragal ko warmaal ko jox ko wàccuwaayam yëpp waaye itam daal di koy dalal ci biir émission bi Cheikh Abdou Khadre ñu ngi lay nuyu di la ziar macha allah waaye di la dalalaat ci biir émission bi di xam sa déet. alhamdulilahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqina wala udwana illa ala alzalimin wa sala allahu ala man qawiya almuslimina biquwatihi wa taazimihi muhammad ibni abdillah sayidina muhammad sal allahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu si seen tur ak si seen sant way asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Abdou Khader Thiam macha allah nee naa tur wi moom wax dëgg yàlla ku ko dégg ku ne rek fi ne daanaka sa xel am ci la mu dem ndax ilimaanu ilimaane macha allah rabbi gannaaw nuyoo bu am solo boobu itam tey dañoo bëggoon waxtaan ak yow lenn ci xam-xam rawatina ci diine muy tey jii bu ñu doon laaj Cheikh Abdou Khader kan mooy Cheikh Abdou Khader ak la Cheikh Abdou Khader jàngee tey jii xam-xam bi nga xamante ni moom lay baaxee àdduna wërngal këpp rawatina ci diine. waaw ñun wax dëgg yàlla xam-xam mbir la boo xamante ni luñ jàng la duut loo xamante ne lu ñuy donnant donnant la. Mm-hmm. déedéet luñ luñ luñ luñ xar suñ tànki tubéy la mm-hmm. jàngi ko maa ngi jàngee. Euh, Sébikotane fa laa débuté si sama benn mag moo ma jàngal bi ma jàngalee as mu yóbbu ma sa Louga ma continuer foofu sama jàng fa laa mokkale alxuraan euh, fa laa amee bac arab fa laa jàngee xam-xamu asraar euh, après nag si la fu ma dégg ku baax rek dem naa si yow gëstu pour am ziyaada muy dolleeku waaw jërëjëf Cheikh Abdou Khadre kon day mel ni fi ne li mag ñuy wax ni daanaka uti xam-xam moom jar naa sol daal li weñ ba mu jeex fi mu ngir am ko moom mhm. daanaka jéego yooyu moom tënku nga ci macha allah bi mhm. mhm. mooy melokaanu sëriñ waaw sëriñ buñ ko waxee dañ ne achequ man farada fi ta'dibi nafsihi mooy ki nga xamante ni yar na boppam pare na si yar boppam sëriñ nag dafa am lum làmboo dégg nga foo mu jàng am xam-xam xam-xam boo xamante ni xam-xamu diine la ba pare fow mu xam ko euh, pour doogo soobu si xam-xam bi nga xamante ne moom moo xam-xam bi nga xamante ne mooy xam-xam asraar pour loo xamante ni mooy jëriñ jaamu yàlla yi dégg loolu nag jàng la laaj jàng mooy tax a xam boo jàngul munoo xam pour nga xam nag foo nga dem si ku xam pour mu xamal la dégg nga moo tax laqdari wax ko awalu maa yajibu alal mukallafi eh, ginnaaw tasqiqu imaanihi su maarifatu ma yasluqu bihi farda aynihi dégg nga awalu maa yajibu alal mukallafi tasqiqu imaanihi ginnaaw bi mu dëgëree ngëm yàllam dégg dafa war a jàng loo xamante ni moom dinem dëgëral diineem tax mu xam dinem moy tax mu xam fu tank mo tax serign munu ñak fo mu jang wa pour nga xam fo nga jang wa lolu mom moy mom moy mom moy serign lolu la war lambo xam xam asrar nak xam-xam la bo xamanteni beuri na legi, di tax mu beuri ñi ci duggu te xamuñ ko mo mo beuri mm-hmm. ñi ci duggu te dañ koy ciof damay wax ne xam-xam ku ko bëgg a jëriñoo faw nga jàng ko euh, euh, li nga bëgg dundee xëy na nit ki mënul xëy di dundee si loo xamee ay pexe la rek ba xëy dee déedéet nit sax war na ruus loolu boo bëggee mbir foo nga jàng ko pour xam ko dégg nga loolu asraar nag xam-xam la boo xamante duur lu ñuy cof du da ngay dem si nit sëriñ bi mu jox la benn kayfiyaat wala dara déedéet Loy, loy, loy, luñ lay initier la mm-hmm. tarbiya la si deeng nga parce que xam-xamu batine pour nga xam ko mm-hmm. du tiaxan fawul nga lo xamantene luñ lay initier la mm-hmm. mooy luñ lay tek si yoon la tarbiya la si lo xamne par étape par étape lay doon par étape ba nga ag euh, si fi nga xamantene ne li jabatou day ñew euh, lim lam nag berina, na borom xam-xam euh, asrar pour mu ñaan pour mu nangu foog mu sell dégg nga sell gi nag moo ëpp doole lépp parce que yàllaa ñu ko digal dégg nga parce que jaam bi pour mu pour pour mu ñaan yàlla pour mu nangul ko foog mu sell kon ku sellul mënul ñaan yàlla pour mu nangul ko dégg am na ñeneen ñoo xam ne seetlu dañuy ñaan yàlla déedéet ñu ñaanuñ yàlla yàlla di leen nangul yàlla da leen di jey parce que dañoo nekk nit yoo xamante ne dañoo alku mm-hmm. bu ko defee ñoo xamante ne ñu alku rek ñoom ñooy dem si ñoom pour ñu leen di dimbali mm-hmm. parce que jaam bi bu jàppee ni alquran mënu koo dimbali bu jàppee ni tur yàlla mënu koo dimbali mm-hmm. kooku daanaka dem na si foo xamante ni daanaka dugg na si alkande bu fekkee dafa laakaa ni ay reen dëgg la baax na sunguf baax na parce que yooyu yëpp alquran la mu génn alquran mais am na ñoo xam ne dañuy dem si ñoo xamante ni daanaka dañuy def yoo xamante ni euh, si xam-xam bu ñuul loo xamante ni ay ay ay ay ay lu bon lay doon loo xam ne diine nanguwut ko dégg nga loolu moom daanaka dafa xaraam ki koy def yàlla da ko alak ki fa dem tamit di ko def kooku yàlla bëggul mu texe macha allah jërëjëf Cheikh Abdou Khadre ci leeral bu am solo boobu wax yàlla euh, amati na solo euh, dégg naa la ci sa biir wax léegi nga wax ko léegi xam-xam bu ñuul euh, dégg naa te dañuy xool fi ni suñu réew mi ci jamono ji ni ñu bëree bëri bëri koo ci wax fi ne daanaka demal ñu ñaan la ci alxuraan nga ne déedéet bàyyi ma dem seeti leneen ndax moo gën a gaaw te jàpp naa ne alxuraan dara gannaaw dara féetewu ko kaw. Mm-hmm. kon jàpp naa ne fi ne dara gënu koo gaaw ci ci ci eh, nga li tax. Mm-hmm. mooy ñi nga xamante ne ñoo mbubboo mbubbu te duñ ay sëriñ xamuñ li ñi def xamuñ li ñu joxé jànguñ qawatimi pour xam de nga jànguñ elmul asrar pour xam fan la daar ba ba dimbali jaamu yalla bi léegi loolu buñ ko xamul nak eh, léegi nit ñi si ñii ñi dem pour ñu leen di dimbali daanaka duñ xam dégg nga booy dem si ko xam xamul pour fu mi jaar pour dimbali la da fay def ay yef rek wala mu tanxay affaire jox la ne la demal dégg nga te loolu Euh, bu ko nit ñi yàggee gis si nit ñi mhm. dañuy dem ba daanaka seen ajo yi du faju ñu découragé si li nga xam ne moom mooy yaakaar ni euh, du leen jëriñ muy alquran mhm. dégg nga fekk loolu mën naa jëriñe mhm. parce que alquran yàlla moom moo ñu wax ne adooni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen loolu alquran tudd na ko bi si des dañ ñaan mooy jaamu yàlla amul jaamu yàlla bu gën a màgg ñaan dégg nga moo tax yéen ne addu'a wal si huwa silaaxul muumin dégg nga moom mooy gànnaayal juddit kon alxuraan yéen bi tamit wax ne wax na si benn xadis ne euh, mu ne jaam bi euh, fa nekk fa dëkk ba mu nekk fa la yàlla di bind euh, loo koy faj ak loo koy jëriñ loo koy jëriñ mu ngi si dëkk boobu mu nekk loo koy loo koy faj tamit bu feebaree ma sa dëkk boobu mu nekk kon loolu nit war na ko xam pour pour pour pour mën a jëriñu léegi looloo tax nit ñi dem si ñi nga xamante ni xëy na njabal la ñuy def wala leneen ak leneen la ñuy def dégg nga di leen tiital di jàppee du min dunillah eh, ñi nga xamante ne dañuy jàpp eh, duñ jàpp yàlla muy yàlla dégg nga eh, te loolu juwoo yàlla la mais ñooñu yàlla da jay si li ñuy def pour pour réeral leen mooy mooy yàlla wax na ko ay afara ayta man ittaxaza hawaahu fa adallahu llahu bi almin yàlla am na ñoo xamante ne yàlla moo leen réeral seen xam-xam dégg nga xam-xam du réeral nit waaye eh, dañoo topp seen bànneexal bakken ba yàlla réeral leen waaw macha allah jërëjëf Cheikh Abdou Khadre am na solo xanaa laaj bu mujj bi rek mooy gannaaw fi ne buñ la déggee bu baax ab sëriñ moom war na am melo mhm. bëgg nañ xam melo yi nga xam ne mooy sëriñ bi melo yi mu war a am ba mën a ñaanal doomu aadama waaye est que tam ki bëgg ñu ñaanal ko moom it war waaw ñoom ñaar ñëpp ñoo yam parce que li tax jaam bi bu bëggee aajom di faju dégg nga parce que dañ koy wax chaque jour yàlla daf ko wa inni la xafaarun liman dégg nga man aji jéggale laa si nga si ki nga xamante ne mooy tuubaakon bi mooy ki nga xamante ni dafay tuub di jëmale si yàlla kon nit war na am comportement boo xamante ni mënul ñàkk def bàkkaar mënul ñàkk def lu bon waaye bu ko defee mu jéggalu yàlla mu fexe sell dégg nga loolu dafay yombalal sëriñ bi nga xamante ni moom moo koy ñaan li des gëm-gëm la parce que yàlla moo wax ne wa shawirhum fil amri la sëriñ bi am mm-hmm. nanga jaayante mooy da ngay def li nga xam te jàngu ko te nag fa tawakkal ala li des dogu la mm-hmm. boo dogoo nag fa tawakkal ala Allah da ngay bàyyi mbiri si loxo yàlla parce que yàlla moom mooy yore mbir parce que moo ne wacha yadullahi fawqa aydihim waaw ginnaaw boo jaayantee dogu ginnaaw boo dogoo bàyyi si loxo yàlla parce que yàlla moom mooy mot wa shaawirhum fil amri fa iza azamta fa tawakkal ala jeex na boo dogoo rek defal tawakkul nga bàyyi mbir si loxo yàlla jàpp yow sëriñ bi nga am yaqin ne li ngay ñaan nangu na taalibe bi tamit mu am yaqin ne li nga koy ñaanal yàlla nangu na ko bu bu ko defee loolu moom moo koy jëriñ moo tax léeg-léeg boo gisee sëriñ si di laaj xaalis loolu moom moo tax dañ lay laaj xaalis pour nga def sa ñaq si alquran nga ñaq boobu ngay def di daw du fu ne nga dugg foo wuti ci benn cent mille boo jox sëriñ bi wala cinquante mille bi ngay jox sëriñ bi dégg nga loolu baati alquran yooyu dañuy dañuy seede rawxaan yi dañuy dem seede ne ah diw ka def na si alquran temps ak temps loolu nag boo ko joxee sëriñ bi rek bu la joxee lim lay jox rek yàlla mun na dugal loxoom bu sell boobu si loolu. macha allah kon daal Cheikh bi su ma la déggee bu baax a baax daal mooy fi mu ne daal waxteeluwaat delluwaat ci suñu borom te doyloo ko. Mhm. lépp moom la daal moom moom mooy ci loolu nga soññ itam jaam yàlla yëpp. ñu tënk wallaay wallaay dëgg la mooy lépp. Euh, jotaay bi moom xam naa ne bëggoon naa mu gën a yaatu waaye xam naa dañ koy tënk fii rek. dëgg la ñu bëgg rek sa kàddu gu mujj laata nga koy joxe rek nga may téléspectateurs yi yu Diassi Ji TV ndax Diassi Ji TV dafa doon télé boo xam ne nee naa mooy la télé révolutionnaire lépp lu dul dëgg moo ko fas yéene jëlee. dëgg la wallaay njëriñul basmala nga hmm. may ñu ci dara rek ñu jeexale ko jotaay bi. Hmm. incha allah waaw njëriñul basmala moom li si gën. Hmm. Euh, mooy 787. 787 787. mooy ku ko mën a def 16 fois nag si benn jotaay. aajo boo si ñaan yàlla nangu na ko. waaw mooy 787 787 ba mu mat 16 fois mu lay jox 12 592 waaw loolu képp ku ko def si aajo yàlla faj na aajo boobu bara ngay jóg ñaan yàlla nag teelu la laaj ak dogu waaw loolu dañ ñaanee yàlla képp ku koy def it boo ko teeloo ñaan si yàlla bu la neexee tamit 787 bi nga koy def subaa ngoon baax na loolu dina jëriñ doomu aadama dana leen musal dana leen ubbi waaw dana leen yéege daal. Mhm. Euh, euh, di waaw di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla seen sit bi di Diassi TV yàlla yëkkati ko. Mm. yéege ko yàlla mbokk si ñi nga xamante ne turu. boobu comme yàlla ni mu yëkkatee turam ba wa kalimatullahi ilal ulya yàlla na ko yàlla yëkkati si mbooleem sit yi te am nañ ci yaakaar bu baax parce que boroom jàmbaar la boroom xam-xam la e, te it ku gëm boppam la te hmm. loolu la diine soxla loolu la jaamu yàlla bi e, looloo koy jëriñ si àdduna waaw ñu ngi koy sant moom bu baax di ko gërëm di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ak euh, yusru incha allah si barke yonent sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Cheikh Abdou Khadar ci waxtaan bu am solo bi waaye jërëjëf itam ci wax dëgg yàlla euh, jot gi nga xam ne jël nga jox ñu ko ngir mën a dimbali jàmm yàlla yi macha allah rabbi sant la gërëm la ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi sañ am mën tey def yal na yàlla gën a dëgëral sa taxawaay te yëkkati mboolem sa yéene di fàttali rek bu baax a baax téléspectateurs yi nga xam ne te ñooy topp Dias bi TV émission bii nga xamante ni moom la ñuy defal Cheikh Abdou Khadre guddi àjjuma ju jot dana ko jagleel askanu Sénégal jagleel ko àdduna wërngal këpp ngir kenn ku ne mën a fàqirluwaat wàqirluwaat bàyyiwaat xel suñu borom xam ne àdduna si ñu ne lu fi mën a jëriñ doomu aadama suñu borom képp lay doon subhanahu wa taala kon dig daje incha allah rabbi guddi àjjuma bii di ñëw ci beneen numéro ak xam sa ci biir Dias ji